dalee nag jàmm mbokk internet yi seen njariñ tv seen tv nag ña fay jógee saa su ne ma ngay gën di law di gën di bëri foofee nag ca seen tv am na ñoo xam ne nag daal di nañuy tekki seen ak ndomb tànk muy télé des médias wala sax seen tv googule bokk ci groupe des médias te kii di Bougane Gueye Dany nek journaliste nek yit ab acteur politique féete ci opposition bi di ku jek politique bi di ko jité fofé nak am nañu fa tekki seen ndomba tank ki di Serigne Saliou Gueye jóge na ci groupe des médias googu journaliste bi nak annoncé na

leneen mante daal man nag sama waxtu dafa jot ngir ma daal di tekki sama ndomb tànk uh, jógee foofee nga xam ne mooy ci Sen TV nee na nag wax naa ak ki ma war a waxal loolee nag la Serigne Saliou Gueye daal di àddoo ci fàttali Serigne Saliou Gueye moomu nag moom moo nekk actuel directeur de publication bu quotidien d'information bile uh, di yoor yoor mu mel ni nag foofee nga xam ne nag moom mooy ca seen daal de nañuy rek dakkal li nga xam ne moom mooy seen ak collaboration ñuy xaar nag ndax yeneen i journaliste danañu kiite ca télé opposition boobule te ki ko jiite di Bougane Gueye Dany nekk nag ci kujje politique gu métti diggam ak nguuru Sénégal gu bees gi